mbokk jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne ni yéen ngi topp Mourid TV foo leen mën a nekk ci réew mi ñu fas leen jàllale nag benn xibaar boo xam ne ni ñu ngi ciy jot léegi muy benn accident bu metti bu am diggante diggante Ngaabu ak Touba diggante benn golf bu jóge woon Touba jëm si woon ci magalu Xuru Mbàkke sëfoon juróom-ñaari nit maanaam dafa surchargé woon bi mu ñëwee nag ba Ngaabu la fekk benn camion bu paan ci digg tali bi mu daw ba dugg ci ron camion bi camion bi nag bi mu paanee amul benn mandarga maanaam triangle de signalisation buy mandargaal ne dafa paan ba bu ab oto ñëwee mën koo moytu buñ sukkandikoo nag ci kàddu yi nga xam ne nii ki ñu doon xebaar mbir mi di Serigne Fallou Sylla di suñu naataango fekke woon mbir mi nee bi accident bi amee chauffeur camion bi moom dafa daal di wàcc daw ñi nga xam ne nag teel nañoo ñëw fekke mbir mi jot nañoo woo sapeur waaye dañoo xaw a yéex a ñëw gendarmerie moom teel nañoo ñëw ngir nag def constat yi mbooleem koo xam ne nii da ngay dawal oto ba yem ca itam da ngaa taxaw ngir jàppale leen mu nekk benn accident boo xam ne nii mu ngi am diggante benn golf ak benn camion juróom-ñaari nit ñoo nekkoon ci golf bi ci saase juróomi nit ñi faatu nan yeneen ñaari nag am nañu ay gaañu gaañu ki nga xam ne nii moo ñu doon xibaar mbir mi te fekke ko di Serigne Fallou la am na ay photo yoo xam ne nii photo woon na ko sax doon ñu ko jéem a envoyé waaye connexion bi xaw a naqari moo tax jotuñu ci waaye lépp lu ci am rek danañ leen ko jàllale